ay discours moom Sénégal façon discours bu ne dégg nañ fii boo delloo ci discours ci archive yi mag ñi dañu mag ñi dañoo wax bind jëf kon nit ñi discours yi nañ fexe bu ko déggee ñu jëf ko kii tax na ñu jëf discours yi mooy état moo ci mën a jàppale sëriñ si pour ñu mën a jëf discours yi xam nga da am loo am solo loo loo laal te bëgguma ko tëb lu mel ni cirque noir boobu film boobu nga xam ni ñi ci nekkoon dañ doon def lu bon di wane seeni awra ba procureur teg leen loxo. man ant man imam Dramé. mi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ni damaa contre Macky Sall. man maa ngi rafetlu loolu. te dinaa wax fi ma ko teg. parce que ñun contre ñu kenn ñun ànduñoo kenn ñun senegal lañ àndal buñ ñu gisee lu baax dañ koy dañ koy apprécier. kon geste bi procureur def police def ko ñu ngi leen ci encouragé di leen wax ni foofu ngeen teg seen tànk foofu la ñun yéen la ñuy liggéeyal ñun réew mi la ñuy bañ mu dugg ci kaw te réew mi bu ñu seetaanee ba valeur yi ñu jaay ko. Mhm. réew mi day dugg ci kaw effectivement kon police ak gendarmerie nga xam ne ñoo traqué ñiy def lu bon yooyu. Mhm. maanaam série boobu ba jàpp leen. Mhm. ñu ngi leen di félicité. parce que ñun bu ñu gisee lu bon dañuy taxaw fii dénoncé ko. te kenn mënul tere ba duñ ko de duñ ko dénoncé. kon bu ñu gisee lu baax dañ naan baax na. mu des nag gis nañ fi ay benn nit ñaari nit ay lobby yu jóg commencé di attaqué ku mel ni Mame Matar Gueye. di leen xamal ne Mame Matar Gueye képp ku ko laal wala nga wax ko loo ko la naqari bàyyil xel ne wax nga ko sëñ Muntaxa wax nga ko sëñ Babacar Sy Mansour wax nga ko xalifa Canaba wax nga ko église bi parce que Mame Matar ay valeur lay défendre effectivement te valeur yooyu muy défendre képp ku bëgg lu baax war nga ko cee jàppale kon Mame Matar boo tëddee nelawal lobby yi nekk ci suuf parce que yow bu dee dañu ni dañoo jàpp nit ñuy jeu film porno nga baal ma ci kàddu ki mhm. parce que noonu la ñu jàpp leen yow kay bu dee sénégalais nga te bëgg lu baax da war a apprécier lool. waaye doo jóg naan Mame Matar Gueye nañ ko na ñun bañuñu culture ñun ñoo leen gën a xam culture. réew mi ay culture rek la. culture séeréer am na fi culture pulaar am na fi. yaa ngi dégg yooyu moo fi jiitu islam culture yooyu kenn bañu ko parce que au contraire ñun ñi man mi man mi tey saalum saalum la am naa culture yu may def. maanaam réew mi dafa am culture yoo xam ne moo fi jiitu diine. ñun bañuñu culture xeexuñu culture. ñun ak mbon la ñuy xeex buñ jaawalee. ak mbon mooy lan. série yoo xam ni day yàq suñuy valeur série yoo xam ni méngoowul ak suñuy aada méngoowut ak suñu diine loolu la Jamra di xeex te loolu Mame Matar doo ci wéet boo tëddee nelawal euh, kuy liggéeyal yàlla nag kuy liggéeyal yàlla lu ne di ko dégg waaye bu wax jotee génnal wax pour nit ñi xam yaay kan bu la kenn noppiloo parce que Sénégal boo noppee ñu diaboliser la mais Mame Matar boo tëddee nelawal ñoo ñu di wax noonu tekkiwuñ dara li am solo daal mooy ñu ngi encouragé bu baax police ak gendarmerie ci ñu continuer di traquer ñi nga xam ne dañoo fas yéene yàq suñu société di ci diffuser ay films prono ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi góor jigéen ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak Wally Seck jàpp gi ñu leen jàpp imam yëpp ci kontaan parce que dañ leen a war a jàpp parce que réew mi duñ nangu ku fi def promotion góor jigéen mhm. loolu ñu ngi ciy encouragé bu baax procureur di ko wan ni boo tëddee nelawal parce que réew mi ñaari diine fi ne christianisme mhm. ak l'islam te ñoom ñëpp dañoo am ay valeur am lu ñuy bañ mhm. yambar yi nekk ci tele bi nag di attaqué Mame Matar ñoo jëmuñu fenn te ay tàppet lañ kenn amu ci fit parce que te bëgguñu réew mi tamit duñu ay patriote fi ne nii ay ONG nekk seen ginnaaw rek di leen pousse pour ñu yëngal ñun ñoo leen gën a gëm culture gën leen a gëm Euh, sunuy tradition mais ñun lu bon la ñuy bañ. te la Jamra di xeex moom la ànd sàmm jikko yi di xeex man Imam Dramé man mii loolu lay xeex. <laughs> lu bon la ñuy xeex moo taxoon sëriñ bi itam yëkkati kàddoom jëmale foofu mais gannaaw loolu itam. Hmm. Euh, sëriñ bi daal dina yëkkati ay kàddu daal di mel ni euh, lu wax ci politique. Hmm. ndax ni réew mënul dem. ci euh, ci politique mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne seen kàddu egg na foo xam ne bu ñu waxee dañ leen déggal tey mu wax ci li nga xam ni euh, mooy ñi nga xam ne ñoo teewal ndawi réew mi fële ci assemblée nationale mm-hmm. tey ñooñu bu ñu demee ba euh, tey suñu kilifa diine gis ni kat la taxoon ñu dem fa wane wanewuñ ci dara ndax ñoom aussi yar ak teggin ndax message la bu ñu jëlee ci euh, askan wi li ko yóbbu foofu ñu waxtaanee fa ba li nga xam ne moom lañ fa jëlee euh, euh, ñeel askan wi nekk loo xam ne lu leen di arrangé la tey sëriñ bi wax loolu ba ŋàññi leen sax ci seen ay comportement comportement yooyu noonu nga xam ne sëriñ bi ŋàññi na ko ban jàngat nga ci am yow jàngat bi ma ci njëkk am rek mooy assemblée nationale moom dafa échec mission hmm. waaw ci naka waaw parce que lu ñu doyee député député sëriñ bi wax na ko député kay li lay doyee mooy boo demee assemblée li amul sa gox boo ñëwee nga wax ko ñu wut ci solution <laughs> loolu la ñu doyee député di mhm. mooy député di peuple peuple bee leen fal mhm. li peuple bi soxla tey lu mel ni mbënd mi nga xam ne mu ngi rey waa Kër Massar di rey banlieue bi mhm. nit ñi di fay ci seen biir kër yi député yi tey dañoo waroon a porter loolu woote woote nu mu gën a gaawe wut ci solution loolu la ñuy xaar ci ñoom mais xaaruñu ci ñoom boo àndeek Macky Sall lu Macky Sall indi rek ñu woote député Sénégal yi looloo fi am. bëri na ci am sax bu ko wax waaw boo àndut ak Macky Sall ku ko xam ni ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ne ñëpp xam nañ ni da leen a sonal ci ay discours. ñoom ñooy jóg di ko attaque te loolu mooy dëgg xam nga wax tamit dañ koy wax mu leer. député APR yi ñooy jóg di attaqué Ousmane Sonko loolu mooy dëgg. Mbéri Sylla moo jóg nit ñi gis ko mu tamponné Ousmane Sonko te ñoom yàgg nañoo tànte loolu. loolu dafa baax ñu leeral ko nit ñi mu leer. député yi am na ay député yu responsable yu fa nekk mhm. yaa ngi dégg même ci majorité bi mhm. mais am na ñu fa nekk ñu irresponsable ñooñu ne dañ leen a war a xàmmee mhm. sénégalais yi taxaw lànk ni dootuñu dugg ci ci ay liste bu ko jaree di wax ni Sénégal ni ñuy falee député moo baaxul Abdou Khadre dafa jot nit bu ñu lay fal yaa ngi dégg ñu ñu fal la ci ay conditions yu leer xam yow yaay kan yow mi ñuy fal yow ban jaar-jaar nga am lan nga mus a defal réew mi <laughs> mais mënuñu ne yow da ngaa ànd ak Macky Sall wala da ngaa ànd ak Ablaye Wade rek ñu dugal la ci list boo demee <laughs> lépp lu ñu wax nga nga nekk fa di tàccu <laughs> tàccu rek lañ fi nekke la sëñ ah, sëñ Fallou xam sëñ Fallou ku mënoon a jàngale la dafa amoon dégg na benn waay euh, euh, taalibeem quoi benn taalibeem ci jamono Senghor mu ne ko kii damaa bëgg nga nga nga nga falal ma ko yaa ngi dégg damay wax ni mag moom ma ko nettali nee na mu ne ko ah Senghor xaw a daal mu ne ko tàccu rek la waaye yóbbu ko muy tàccu waay <laughs> xamal li ma wax maanaam li ma ci bëgg a wax rek pour jàngale wane ni mag ñi ñoom xamoon nañ li xew xam nga sëñ Fall ci xamoon na ni gars yi dañuy tàccu te jamonoom la la xool ñoom ci tàccu lañ ne waxuma laa ci jamono ji sa veut dire il faut ñu responsable xam ni tey Sénégal dafa am ay priorité priorité yi priorité yi Sénégal am tey mooy mbënd mi mhm. banlieue bi nekk ci mbënd mi mhm. nan la ñuy fexe ba génne leen ci mhm. c'est important mbas mi nan lañuy fexe ba génne ko génne génne réew mi yaa ngi dégg élection yi ñu jëm nan la ñuy fexe ba def ko ci transparence ak équité yooyu mooy priorité Sénégal tey mais di attaqué ay nit yoo xam ni euh, bu caaxaan jexe dëgg des ñoo la gën a bëgg réew mi gën laa xam réew mi li leen liñ defal réew mi defaloo ko ko loolu tamit fitna rek lay indi. transhumance sëriñ bi tamit wax na ci. wax na ci ba expliquer euh, ah. forme transhumance bi nga xam ne ah. moo gën a yàlla ci askan wi. waaw mm-hmm. transhumance moom as gor moo ko war a def xam nga gor du du wàcc ba pare di ko lekkaat. mais mais bu fekkente ni defar moo tax a jog nag. non xam nga. bu ñu xam nga tey mën nga nekk ci opposition bi. gis ni loo xam ni bu la ko boo bu ñu bi. boo ñëwee dinga nga apporter sa soutien ak euh, lenn loo xam ne mën na ko dindi. man daal man pour kii man gëwuma transhumance man. Hmm. xam nga ci démocratie lañ nekk. loo gëm maanaam li ma gëm mooy nga constant ci dara. nga nekk fenn ñu xam ne yow man ngaa ne ci opposition di liggéeyal réew mi man fi ne nii nekkuma ci pouvoir mais jàpp naa ne maa ngi liggéeyal Sénégal parce que maa ngi def alerte ñi ne opposition sax foofu ngay gën a mën a liggéeyale réew mi kon loolu waxi tappale la rek koo dégg mu damay dem pour Macky Sall xamal xam lu mu jublu. dem ñu ranger ko jox ko ci poste yi mu toog mais nit mën ngaa toog fa nga toog nekk ci opposition wala nga nekk ci société civile bi. wala nga nekk imam wala nga nekk journaliste. parce que liggéeyal sa réew du jaagin da nga yor ay ay ay poste de responsabilité rek kon loolu waxi caaxaan la am na premier ministre bu fi waxoon ne ku transhumé dañ laa war a dóor bal. yéen a ngi koy fàttaliku. jamono nu mu tuddati. Souleymane Ndéné waxoon na ko fi. Mhm. waaye gis nga moom yàlla natt ko fa mu mujj. mu dem transhumé lii dañ koy wax pour fàttali rek transhumé man gëmuma ko xam lu ma gëm nañ ñi opposé wu nañ assumé nekk ay opposant mm. ñi doxal ñiñ fal nañ doxal société civile bi jouer seen rôle société civile sëriñ si jouer rôle marabout mooy nekk ci digg bi mm-hmm. équilibre libre arti yaa ngi dégg mm-hmm. équilibre mm-hmm. loolu buñ ko defee réew mi jàmm rek a fi am waaye bu dee ñëpp dañoo daw wuti Macky parce que Macky Sall la yor xaalis bi Macky la yor poste yi bu yàggee ñëpp jaay seen ngor kenn du fi des pour waxal réew mi kon man gëmuma transhumance yaa ngi dégg bokku teg nag ab technocrate boo xam ne musul def politique parce que politique idéologie la Abdou Khadre idéologie yëpp tey rey nañ ko tey parti bu mel ne PS ak doole ji ñu am bu ñu mënee dem di sey biir APR loolu catastrophe la ci ci ko xam histoire histoire PS yaa ngi dégg ay parti gauche yu ju bari tey sey nañ ci biir ci biir biir APR ndax parti yooyu ay idéologie la woon mhm. maanaam nañ delloo si waat idéologie yi delloo si waat école parti yi mhm. ñu formé waat nit ñi mhm. yaa ngi dégg jàngalaat nit ñi ñu amaat tuuti gëm-gëm gëm nit bala ngaa dee sa wërsëg di nga ci jot et puis yi ñu jox président de la république pouvoir yi ñu wàññi ko parce que li tax tey ji réew mi Macky Sall tey am pouvoir di buur di bum mi pouvoir yi dañ ko loi yi ñoo ko joxa ah. mais assises national yi waxoon na ko malheureusement assises nationales yi dañ ko trahir kenn appliqué wu ko mais dañ ko waroon a pouvoir yi ñu wàññi ko. ñu dooleel assemblée nationale. mais assemblée nationale bu fekkente ni. Euh, pouvoir moo fa ëpp majorité itam. waaw mais rew yi euh, boo demee Europe tey wala rew mu mel ne États-Unis mhm. dañuy gis assemblée boo xam ne nii assemblée euh, pouvoir bi moo yor majorité bi mais am boo fa indee ay loi gars yi dañ koy teg ci taabal ji. lan mooy tawal assemblée kon ah. bu demee bu demee noonu ba euh, lu ñu indi rek mu gouvernement indi rek ñu voté ko lan mooy tawatu assemblée nationale. moo tax man la assemblée moo gën a échec ñëpp parce que assemblée bu joué rôle bi mu war a joué. Mhm. tey nguur gi du am fitu def li muy def. assemblée waroon nañ di xool budget yi ku ñu jox budget ñu xam ñaata la foo koy dugal loolu rôle lu député la. mais assemblée yaa ngi euh, député bu jàngul moom ndax di nga mën a. xam mooy mooy li ma la wax nit. même boo jàngul nga am moral parce que am na lu ëpp doole xam mooy moral ak éthique. loolu la suñ député yi amul bu ñu amoon moral ak éthique ak patriotisme. am na loo xam ne duñ ko nangu. man gëw ma sax ñu naan ku jàngul tubaab doo fi nekk député loolu waxi caaxaan la. te loolu tubaab yi ñoo ñu ko bëgg a imposer. te ñun duñ ko nangu parce que réew mi am na fi ñoo xam ni jàngu ñu benn langue waaye jàng nañ àdduna. alors ah, am na ci ci mbedd mi lañ jàngee àdduna. bu dee ñun sëriñ daar yi nag ñun ñoo leen raw moom ñun ñun ñi ma wuñoo discuter ak ñoom. ñoo leen gën a xam politique ñoo leen gën a xam diine ñoo leen gën a xam àdduna xanaa nga jaar ci daara ji jaar fa jàll mais boo jaaree ci daara ji ba daara ji pare ci yow koo toogal booy wax du wax parce que tolloowu leen niveau loolu réew mi ñi fi Serigne Touba ndongo daara la te tey jii lu baax li li ne ci réew mi bokk na ci ñu ko fi indi Cheikh Omar Fouti yu ndongo daara la woon Seydi Hadji réew mi kon daara ji ñoo mos yor solution bi li tax sa réew mi tardé ba tey dañoo am indépendance ñu jël sëriñ daara yi génne leen ci réew mi sëriñ si ñu indil ñu laïcité loolu moo tardeel Sénégal mais bu doon Sénégal bi ñu amee indépendance rek dañoo am ministère des affaires religieuses dénk ko sëriñ si ñu jël ñaari culture yi culture diine bi fi nekkoon culture mhm. arabe bi mhm. ma sax culture arabe diine parce que culture arabe ñun gëmuñu ko mhm. ñun diine lañ gëm nga xam ni diine ji fi nekkoon nga xam ni def na fi juróom ñetti téeméeri at lu jiitu colon yi di fi ñëw bu fekkoon dañ koo jël école boobu ñu boole ñaari école yi kon Sénégal dem na yoonam mais li ñu mooy dañoo ñël école Jules Ferry bii nga xam ni amalul njariñ réew mi échec na te ñi ñiy sàcc alalu réew mi yëpp moo leen formé loolu mooy dëgg mm-hmm. réew mi depuis 60 ba tey ñiy sàcc alal ji ci école Jules Ferry bi lañ génnee mm-hmm. c'est très rare ngay gis kuñ la ne ci daara ji la jóge mm-hmm. këpp na kees loolu moom ay constat la kon dama laaj ñu am courage xam ni société day toll foo xam ni dañ cee war a boole ñëpp pour tabax réew mi réew mi nag doo xaar ko la ci boole tamit man d'accorduma ci ñi naan man damay xaar ku ma ci boole yaay ñëw wane lu tax ñu boole la ci waxuñu ay poste man waxuma waxi poste man ngaa bokk ci réew mi te doo am post nekk conseil di joxe sa xalaat bu dara xewee ñu bind ci yaa ngi dégg mbas mi tey li ñu dal bu doon boole nañ ci sëriñ si mbas mi jóg na mais woo artistes yi woo footballeurs yi bàyyi fële sëriñ si mbas mi mu ngi ñuy bëgg a jeexal te li ko indi yëpp mooy mbas mi bu doon ca commencement ba mu Mountakha dafa jël kàddu wax sëñ Babacar Sy Mansour jël kàddu wax ba jël kàddu wax église bi jël kàddu wax kon lépp lu luñ sant sénégalais yi ñu def